أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñaari aaya aaya 64 ak aaya 65 ñaari aaya yi nekk sunu kanam bokk na ci li ñuy soññ mooy wujubu taati rasul fi ma yaamuru bihi wa yanha anhu bokk na ci li ñu aaye di jàngal mooy war gi nga xam ne war na ko topp yonent bi mbokk yi ndeke topp yonent bi dafa war topp yonent bi ndeke du sunna waaye bal farata la ni ngay jullee di woor am alal aj wala génne azak noonu mu nekkee farata nga xam ne ñemewoo koo bàyyi noonu la topp yonent bi nekkee farata ndax ki la julliloo woor loola joxe loola azak aji loola màkk moo la toppaloo yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndeke topp yonent bi mbokk yi farata la tey bu ko jullit yi négligé wala jullit yi doyadil ko wala jullit yi jël keneen bëgg a teg ci kaw yonent bi mooy ñàkk xam la ak réer waaye ndeke topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokk yi farata la bokk na ci li ñuy jàng tey danañ gis bu nekk warugar nekk wujub saa yiñ la ne wujub rek mooy dañ la dafa war mbir mu war nag lu ci jaadu mooy def rek saa yoo ko bàyyi rek am nga bakkaar ñaareel mooy butlaanu man yazamu anna al aaya dalilun ala jawazi talabi al istighfar min ar rasul sallallahu alayhi wa sallam لأن قوله تعالى لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية نزلت في رجلين اللذين أرادا أتهاكم إلى كعب الأشرف كعب ابن الأشرف اليهودي وإعرادهما عن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكنا تلني جانغتي موي فهم أب آية bu bokk ci li ñuy tafsir tey aaya boobu dafa am ay jullit yu ko gëm di ci profitoo di bokkaale ci ay nit soo leen ne li ngay def daganut ñu ne la gaa yi yonent bi yàlla waxoon na nit ñi ñu def ko ci yonent bi di daliloo aaya boobu ñuy wax te aaya baa ngi ñëw ndeke danañ jàng aaya bi dafa ñëw di weddi butlaan di yàq képp koo xam ne danga gëm ne dalil jawaas dafa dagan nga ñëw ci yonent bi ale nga nga jéggulu ci yonent bi au lieu nga jéggulu ci yàlla nga jéggulu ci yonent bi danañ gis ne ndeke loolu musiba bu rëy rëy rëy rëy la ñenn ñi dañ naan aaya bi dafa wàcc ci yonent bi déedéet fekk aaya bi li tax mu wàcc sabab bi mooy ñaari nit ñi dummóoyu woon yonent bi dem ci kaabul asraf Kaab ibn al Ashraf nga xam ne yahud la ñu du mooy yonent bi dem ci ñoom dem ci Kaab ak xuyay aaya bi wàcc di dal seen kaw waaye aaya bi wàccul ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam beneen bi mbokk yi fa chartu tawbatuhuma ittiyaanuhuma li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñooñu li yàlla charte ci ñoom pour ñu tuub yàlla baal leen mooy ñu dikk ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu ñëw ci moom wal istigfaaruhuma lillah ñoom ñaar ba ñu ñëwa ci yonent bi yonent bi mooy ki leen jéggalul yàlla dañoo ñëw ne yonent bi ñu ne dañoo def ay bàkkaar jéggalul nu yàlla baal leen yàlla baal nu yonent bi jéggalul leen wal istighfaru rasul lahuma mu ne yonent bi jéggalu leen wa bi zalika taqabbala tawbatuhuma nee na lii moo tax yàlla nangu ñoom ñaar seen tuub mais buñ ñëwuloon ci yonent bi yàlla du leen baal kon loolu muy wane mooy nun ñëpp ci ginnaaw yonent bi lan war a nekk borom bi wax na ci qur'an يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonentam nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonent bi wa illa fala tawbata lahuma nee na bu ñëwloon ci yonent bi yàlla du leen baal amma man adahuma fa tawbatuhu la tatawaqaf an ityaani li rasul sallallahu alayhi wa sallam wala li istighfarihi lahu wa hada mahallu ijmaai almuslimin mais nag keneen ku dul ñoom nag boo jéggaloo boo defee bàkkaar booy jéggalu rek jéggalul yàlla jarul dikk ba ci yonent bi lan moo tax ñoom ñaar pour yàlla baal leen foog ñu dikk ci yonent bi ndax dañ fee bàyyi yonent bi dem ci ay yéeféer di fa attewu ñu ne leen yéen ñaar ñi pour yàlla baal leen foog ngeen ñëw ci yonent bi ndax yonent baa ngi dund kon nag mbir mi dafa war a leer ci suñu bopp bu bu nu jaxase nee na lii mooy la ijmaawul muslimine dëppoo loolu danañ ko jàng ci aaya yi ñetteel mooy kullu zanbin kabir aw saxir yuctabar zulman li nafs mbokk yi bépp bàkkaar bu nit def bàkkaar bu ndaw la wala bàkkaar bu mag la tooñ sa bopp tooñ nga sa bopp ku def bàkkaar bu ndaw sa bopp nga tooñ ku def bàkkaar bu mag sa bopp nga tooñ tooñoo kenn ndeke ay bàkkaar yi nit di def defu ko sàmba defu ko ma demba kan la ko def wa man asa fa alayha ku def lu bon sa bopp nga ko def gaa yi nee nañ bàkkaar mu ngi mel ne nga tëdd ci sa kaw laal tëdd sa duubul lii ñu lalal la mat la boo xam ne dem na cinquante épiseur bi man la boo xanaa war na nooy ñu tegal la ci benn dara bu jidda nga tëdd ci jaaxaan di saw ba pare naan maa ngi ci wanag bi waaye di saw loolu mooy bàkkaar koo ko def ki jaaxaan ci lalam di tuur ndox ngeen baal ma ci baat bi ah di saw kook kan la ko def kooku bu yeewoo xam nekkul woon ca dus kon nañu yàlla sàmm bàkkaar nag lan moo ci war mooy wa tajibu at tawba minhu bàkkaar li ci war rek mooy tuub léeg-léeg nga wax bàkkaar ñi ngay waxal wala nga jàkkaarloo ak ñoom wala ñuy dégg seen xel dem ci diw amul bàkkaar wala am na ko amul bàkkaar mbokk yi ndax am na ko amul bàkkaar am na ku gàtt xel nekk fële naan waaw am na kay xelam dem ci kenn kooku ay conteneur la yor ay njaganjaay la yor kooku ngay xalaat eh yow sama mbokk bi kooku ngay xalaat ay conteneur la yor maa ngi moom ak yow dañoo fees del waaw ku wax loolu yonent bi yonent bi moo ne kulli ibni aadama xatta doomu aadama boo gis defkatu bàkkaar la dafa fees del mu ne wa xayrul xataaina tawaabuun ñi gën a baax ci defkatu bakkaar yi mooy ñi tuub ibnu mas'ud nee na law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xijaari xatta al mawt su ngeen xamoon samay bakkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba ma dee ñëpp am bakkaar te bakkaar nag yàlla moo koy baale kenn mënu koo baale xam nga ci ci christianisme ab chrétien bu defee bàkkaar day ñëw ci cardinal bi wala labbe bi mu daal di raay bopp bi daal di koy seexal benn bonbon bu ndaw ne ko baal nañ la say bàkkaar ñoo mooy plateau bonbon yooyu ngay gis waa ji yor gaa yi ran mu leen di sexal di raay baal nañ la ndeysaan nga macc bonbon bi mu daal di seey ñu sexal la ñu ne baal nañ la ñu sexal la ñu ne baal nañ la ñu sexal kii ñu ne baal nañ ko ci islaam nag loolu amul ci islaam amul kenn koy dem ba ñu baal la lu dul ci yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi dund soo defee bàkkaar nga ñëw ne ko damaa def bàkkaar ñaanal ma yàlla yàlla baal ma mu jéggalul la yonent bi nag nekkatu fi waaw kon ku def bàkkaar rek li la war mooy nga tuub dem ci sa boroom tuub demal jàppal sangul set lalal si jaada jullil ñaar rakk su jootal jooyal rëccul tuubal wooral naafilaal ñaan yàlla mu baal la bàkkaar bi ndax bàkkaar kat su ko nit deewaalee foog ñu mbugal ko bàmmeel suñ la ko mbugalee bàmmeel jeexul foog ñu dugal la safara pour nga set ci àdduna boo amee bàkkaar pour yàlla baal la bàkkaar yi bari bari bari bari bari bari bari ba al dalay feebar la pour baal la wala mu teg la benn natt wala nga am benn problème wala jafe-jafe pour mu baal la ñu teg la lii yëpp bàkkaar bi jeexul ñu mbugal la biir bàmmeel jeexul ba nga dugg safara sikki nekk ci kon su ko defee nit defaru tuub yàlla baal ko te nag bu kenn ci ñun wax ne man de damaa bari bàkkaar ba yàlla duma baal قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ey yéen sama jaam yi yéen sama jaam yi nga xam ne da ngeen a yaakaar ne dootuma leen baal déedéet ah kay dinaa leen baal de xanaa yëgu leen ne man yàlla damay baale bàkkaar yëpp inna allaha yaxfiru zunuba jamia jamia la wax jamia booleem bàkkaar dangaa rey nit dangaa bokkaale dangaa lekk riba dangaa njaaloo dangaa sàcc dangaa fen yëpp yàlla dina la ko baal kañ soo tuubee soo dellusee ci moom nga tuub yàlla baal la waaw kon ñun ñoo ci des yàlla baax boo xam ne baax goo xam ne xoolal guddi bu nekk moom yàlla dina wàcc ba septième asamaan yanzilu rabbana ila samai dunia kulla yawm kulla yawm kulla yawm mata hiina yabqa sulusu leyli al axir guddi gu nekk yàlla dina wàcc ba septième asamaan guddi gu nekk lan lay wax ay waay ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may balu ma baal ko allah ana ku baax ku mel noonu kan ma baax baax googu bés bu nekk nga taxaw di tàllal jaam yi loxo naan ku may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may balu ma baal ko kan moo yor mbaax googu kan sunu borom rek sunu borom rek moo tax doomu aadama bu duggee safara rek dafa alko ndax yàlla bindu la pour yóbbu la safara waaye ci dëgër bopp ci alku ci mbon ci nar a texee di ak topp bakkanam ak topp seytaan ci la ko yàlla di dumee dumaa ba dugal ko safara effort bu ndaw tuuti coono tuuti effort bu ndaw yàlla baal la dugal la aljana bu ndaw bu ndaw tuuti yàlla baal la ci lool kon nanu xam ne ku am bàkkaar da ngaa war a tuub ah at tawbatu minhu na nga tuub ci loolu na nga jéggulu bil istighfar na nga jéggulu wax astaghfirullah astaghfirullah waxuma waxuma saafurulaay de waxuma saafurulaay de ni yenn paa yeeg maire yi di def yor kurus naan saafurulaay saafurulaay luy saafurulaay astaghfirullah astaghfirullah loolu la ñuy wax yàlla jéggal la mooy yàlla baal ma istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yàlla nee na jéggulu leen ma jéggulu leen ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na maa leen gën a ragal yàlla waaye bis bu nekk dinaa def téeméeri yoon astaghfirullah am na riwaaya boo xam ne nee na 70 fois juróom-ñaar fukk astaghfirullah benn waay ñëw na ci benn borom xam ne ko tool yi de dañoo manqué ndox mu ne ko demal nga wax astaghfirullah keneen ñëw ne ko ñun de dañoo bëgg man damaa bëgg doom mu ne ko demal nga wax astaghfirullah keneen ñëw ne ko man de damaa bëgg alal mu ne ko demal nga wax astaghfirullah am na ku toogoon di suivre action yi di suivre mbir mi nu mu demee ñett ñi ñëw ñëpp ku nekk wax façon feebar mu jox ko benn comprimé ñoo ñëpp benn la leen génneel benn waa ji ne ko man de damaa jaaxle kii moom da ne ndox lañ bëgg nga ne ko waxal astaghfirullah kii ne man de doom laa bëgg mu ne ko waxal astaghfirullah kii ne ko alal laa bëgg mu ne ko waxal astaghfirullah waaw loolu nu mun demee mu ne xanaa déggoo yàlla lu mu wax ci suratu nuux istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا kon astagfirullah amul lu munu leen di iblis dana yàlla laa azaalu agwihim maa daama arwaahum fi ajsaadihim duma deñ di leen bewloo di leen alak feek ñoo ngi noyyi duma deñ di leen bewloo yàlla ne ko wallahi giñ naa ci sama màggaay duma deñ di leen baal feek ñu ngi may baalu laa azaalu aghfiru lahum ma kaanu yastaghfiruni duma deñ di leen jéggal feek ñu ngi may jéggalu kon lu fi des kon bu nu alkoo nun la mun toppee seytaan topp mbedd topp bànneexi bakkan topp ay kilifa seytaan ñoo xam ne jëmewuñu yàlla ci jaam ñi waaye ci seytaan lan la jëmale ba nga réer alku ba sa borom bi la waroon yërëm mbugal la yow yaa ko def moo tax gis nga yowmal qiyaam yàlla buy mbugal jaam bi malaaka yi bu ñu tiitee ci mbugal gi ndax ñu méttee yàlla ne malaaka yi jàpp leen waa ji seene leen ko juróom-ñaar fukki junni seen seene leen ko juróom-ñaar fukki junni seen na ngeen ko yeew na ngeen ko dugal ci xuru safara yi rokkos leen ko ci malaaka yi dañ ne yàlla lii nag mu ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yahuddu ala taamin miskin falaysa lahu alyawma ha huna ha huna xamim kii xam ngeen lu tax ma def ko nii li njëkk mooy gëmum loonu gëmuma woon man yàlla mu màgg mi gëmuma woon daawul jox miskin yi ñu lekk ñu yaakaar ne fa la yàlla yàlla mu ne gis nga fii tey fii fii ci àllaaxira ñu ne yàlla mu ne amu fi xarit maa war a nekk xaritam te man la noonu woon àllaaxira xarul amu fa de copain copain copain amul àllaaxira de kuy copain bu yemam xam ne fii nga yem ak moom moo tax ndeysaan gis nga àllaaxira yàlla lan la wax suratul baqara wa taqattaat bihimul asbaab sabab yi dagg na li leen li leen boole woon li boole woon yaag waa ji ngeen di ànd ngeen mu nekk sa copain mu nekk sa xarit mu nekk sa am di jàmm lan moo taxoon yéen ñaar ngeen ànd ngeen xaritoo mooy dafa am benn deal bu ngeen bokk benn benn benn affaire bu ngeen bokk boo dee dagg na ko yàlla dagg na ko moo tax mu ne wa taqattaat bihimul asbaab sabab yi dagg na waaw yàlla moo war a nekk sa xarit yàlla moomu nga noonu woon moo tax alaaxira dootoo fa am xarit wa laysa lahu lyawma hahuna hamim wala taamun illa min ghislin la yaakuluhu illa alxaatiun kon nan tuub waaye est ce que dañuy tuub rek mu jeex déedéet des na tuub wan nadam réccu réccu ñu ngi ci weeru koor tuub rek du doy da ngay réccu looy réccu mooy waxtu yi nga doon sànq xolal xolal làmb ji li mu jël ci suñu temps kan mu nekk fii ci jumaa ji te du seetaan làmb benn nit ñaari nit ñett ñeent allahu akbar xolal làmb li mu jël ci suñu temps ah ki ki ki toog ci télé bi xoolal làmb li mu yàqal waa Sénégal toog ci télé depuis 10 heures ci suba wala toog ci tribune stade ah depuis 10 heures ci suba ba ban heure ah xoola waxtu ni mu seeree ba yàlla giñ ci yàlla ne wal asr wan nahaar wal layl ah waxtu ni mu seeree ba yàlla di ci waat yow nga sànq waxtu wi dem di toog di seetaan yu amul bopp amul geen nekk ci stade yi nekk ci soirée yi nekk ci mbedd yi nekk ci grand place yi ah di sànq waxtu yàlla bi da ngay rëccu loolu rëccu rëccu waxtu yi nga doon sànq doo julli ji doo julli julli jot nga tëdd di nelaw julli jot ngay seetaan télé benn maire moo ma woo démb barki démb bi Sénégal équipe équipe bu ndaw bi di nekkee coupe du monde match yi ban heure la woon ah match yi ban heure la woon 4 heures et demi 4 heures et demi benn jigéen de jigéen mu ne ma ndeysaan sama jëkkër day yeewu de waaw parce que match moo am mu ne ma du julli mukk bu bu bu bu bu football amul kenn mënut a tax mu yeewu mais 4 heures bi sax et demi bu jotee day seetaan match bu match bu jeexee mu demaat tëddiwaat du julli mukk fajar ku match di yee fajar ku match moo tax nga yeewu yàlla jarul la nga yeewu allahu akbar ñaata ci ñun toog fii ñoo yeewu 4 heures du matin toog di xaar marché bi waaye yàlla jarul leen 4 heures du matin moo tax dañuy sóob rek sunu koorantu yi ñu def sunu ngëmantu yi ngëmantu yi affaire sóob la quoi ay théâtre la yàlla day xool ni ma laa koy xoolee waa Sénégal ay théâtre kat lañ quoi xoola koor bu ñëwee rek ñu langar langari uti jàkka yi quoi di ji ma jéem a lóore waaw yéen ñëpp nànd naa leen xam naa leen yéen ñëpp ndeysaan Allah ah yàlla jubal foon dañuy forek bu ñuy jaamu yàlla weeru koor ba weeru koor ndeysaan loolu mooy ramadaniyun la rabbaniyun yéen yàlla ngeen ramadan ngeen di jaamu mais jaamu leen yàlla te nit ki dafa nekk rabbaniyun la ramadaniyun dañ leen yàlla jubal mais nag loolu yëpp ak lu mu mun a nekk nañu yëg ne weer wi weeru changement la shahru taxyir nanu changé mbokk yi nanu changé nañ jël décision dee mel naa ni à partir de tey à partir de fan yi di ñëw ñu jël décision dogu bu nu lenn doxati suñu digganteeg suñu borom waaw bu kenn doxateeg suñu digganteeg suñu borom li aadama waxoon keroog xawa xalli bayni wa bayna rabbi jógal sama digganteeg sama borom nii nga defoon ci àjjana ba ñu génn ma puusal awa daal di puus malaaka yi daal di yegsi nañ def loolu nun ñëpp nanu jël décision temps bi des na ñoo ngi dund temps bi des na am nañu fursa pour tout pour dellu ci suñu borom pour jaayantewaat ak moom yàlla bëgg na waajoo xam ne dafa tuub dellu ci yàlla yàlla day woo malaaka yi ne leen xool leen sama jaam bi dellu si waat na maa ngi leen di seedeel ne baal naa ko bu bàkkaaram tolal ne bàgg géej it baal naa ko kon nañu réccu li passé gars yi dañ ne wa suratu tawba li ci njëkk mooy an nadamu ala ma faat sarti tuub li ci njëkk mooy nga rëccu li nga doon def nan rëccu ñu ngi ci waxtu rëccu ñu ngi ci temps wu rëccu kon nanu rëccu an nadam waaye wala azm ak dogu gis nga ñett pour yàlla baal la ñett ngay def da ngay jéggalu waaye nga rëccu waaye nga dogu ala azm dogu lan mooy dogu mooy jël décision ne man dootuma tardé jàkka fajar dootuma tardé jàkka waxtu yu juróom dootuma neenal lundi ak jeudi koor dootuma jël décision nangam laa doon def bàyyi naa ko léegi laa ko doon wax juma gars yi di ree sama facebook tey ci fajar ñu ma waaye benn image benn waay ndeysaan mu ngi xam naa nag kilifa la quoi benn borom déq de déq ndox yi sedd yooyu war ba ngoon sol silen maam sol kilot paalakat ak dessin bi ni mu ni mu ñàngee mu daal di sax cigarette quoi daal di taal allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart faghfir li ma woon ko sama soxna mu ne baat bi waru ko ci woon def baatu faghfir li bi moom waru ko ci woon def faghfir li ma qaddamtu wa ma axar xoola woor ba ngoon di jóge cigarette di ndogoo cigarette woor ba ngoon amoo looy ndogoo lu cigarette inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah la ilaha illallah nan góorgóorlu mbokk yi weeru weeru bàyyi cigarette la ngay toog journée bi fajar ba timis doo too tox doo tox góorgóorlul même sa bopp bi bu méttee gëmmal rek takkul wallaay deux jours trois jours quatre jours cinq jours nga nga jóg ci feebar bu bon boobu xanaa xamu leen ne ku lekk laaj yonente bi doon tere nga ñëw jàkk ku lekk laaj laaj ak cigarette bu gën a xasaw wuy leen ma laaj ak cigarette bu gën a xasaw cigarette baaxul yenn saa yi nga dégg benn waaye ne non cigarette dara nekk ci c'est que iblis a ci saw waaw loolu rek doy na mbon loolu rek doy na mbon lu iblis saw loolu rek doy na mbon lu iblis saw nga ci def sa gémmiñ bu ci xale sawoon sax doo ko def kan mooy ci ñun fii lekke kudd bu xale bi saw wala socc bu xale bi saw kan moo koy dugal gémmiñam kenn ci ñun fii léegi nag nga ni waaw non c'est que cigarette dara nekk ci c'est que iblis a ci saw loolu doy na mbon yàlla na yàlla gindi waaye wal azmu ala adami muraajaatihi bi xaalin min al axwaal da nga fexe nga rëcc dogg ne dootoo delluwaat ci benn situation si situation bi lu mu mën a posé wu fexeel nga xeex ak sa bakkan bul delluwaat ci ay bakkaar fexeel nga xeex ak sa bakkan bul delluwaat ci ay caaxaan mbokk jullit yi bokk na ci li ñuy jàng ci sunu aaya tey yi mooy kullu zandin jël nañ boobu wujubu tahaakum ila kitaabi wa sunna wa xurmati tahaakum ila gayrihima ba tey ñu ngi ci sunu aaya démb yi atte woo yàlla ak yonent dafa war dafa war jaam ñi mbokk yi fexe leen yéen waa Sénégal fexe leen 13 millions population bi fexe leen ngeen tànn ci ku leen jiite di leen yóbbu ci téere yàlla ak yonent tëral leen programme boo xam ne dana leen indil ay nit ñoo xam ne bu ngeen leen falee ñu yóbbu leen ci yàlla ak yonentam ngeen fexe ngeen jóg ci laïcité société buy dund laïcité société bi du baax moom maa ngi koy wax léegi juma bi ma dégloo rajo am na comme zaaru tës la mais ci beneen rajo xalaas la fa tudd yaakaar naa RFM la benn xale bu jigéen bu am 23 ans topp caaxaan ba benn tubaab yël ko yóbbu këram fooyo ba doyal ëmbal ko buub ko sànni ji mbalit mu am doom ñëw ci rajo bi naan baayam laay wër na ñëw rek nangu doomam quoi moom ne moo ko jur baayam laay wër waaw baayam laay wër foofu la sénégalais yi toll mooy wax mu naan barke bëgguma sax tudd ki muy waate barke diw laa wax barke bëgguma loolu rek na bàyyam ñëw nangu ne moo ko jur barke diw lu ko jiitu yëgoon ngeen li xew Jurbel ay 13 ans 14 ans di organiser soirée woy yoo xam ne fecc yoo xam ne yal na nu yàlla dimbali tey société bi foofu la toll xam ngeen lu tax loolu ñëpp mën a am mooy li li jiite réew mi ak fi ñu jaarloo réew mi moo baaxul loolu moo tax man leen borom xam-xam yi nee nañ at xaakumu ila kitaabi wa sunna nan fexe ñu am nit ñoo xam ne dana nu àtte waaye nun nuy àtte ci yàlla ak yonent ndax xam ngeen ne àtte woo lu dul yàlla ak yonent daf xaraam àtte woo lu dul yàlla ak yonent loolu def xaraam mbokk jullit yi waaye bokk na ci juróomeel mooy wujubu rida bi hukmillahi wa rasulihi wa taslimi bihi bokk na ci li ñuy jàng tey mooy nangu d'accord gërëm ci atte yàlla ak yonent ak su yàlla ak yonent atte nga nangu ko su yàlla ak yonent waxe nga nangu loolu lépp nañ ko xam lii mooy juróomi mbir yoo xam ne moom la ñuy jëlee ci sunu aaya yi nga xam ne moom la ñu fas yéene jël tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما برم بنينا وما أرسلنا مسما يني من رسول كندو يننت إلا لدل يتعب نطب الله أكبر مسما يني بين يننت بما تنبلي يني أي يننت ñuy ñëw ci kaw suuf ba fii nu toll amul benn yonent bu ma mës a yónni lu dul la ma bëgg ca ñama ko yónni mooy pour nu topp ko wa ma arsalna min rasulin illa li yuta waaw kon yonent bi dañ ko war a topp wala waruñu koo topp ah dañ ko war a topp wala waruñu koo topp ndeysaan gis nga baat yooyu sax boo koy wax fi gars yi dañuy tayal a tontu dañoo war a topp yonent bi wala waruñu koo topp lu ngeen di noo fi mais tàmmunu ko moo tax tàmmunu ko xamunu topp yonent bi xamunu ko Sénégal xamunu ko boo nee yonent bi nee na ñu ne ah waaye nag nan laay def sama papa nan laay def sama maam nan laay def sëñ bi nga ne yonent bi nee na ñu ne sëñ bi nee na yonent bi nee na ñu ne sunu maam nee na mooy li mbokk bi doon wax démb yonent bi nee na woor leen bu ngeen gisee weer woori leen bu ngeen gisee weer su lëndëmee ngeen mottali fan weeri fan soo ko waxee benn waaye mu ne non non non c'est que jamono boobu am nga yonent bi mi ngi dund léegi nag yonent bi nekkatu fi nag léegi kon danoo war a xaar rek sunu kilifa yi ñu jox ñu ndigal rek nu woor yonent bi muy wax dana woon ñu xaar ndig kilifa yi en tout cas joxe na orientation est-ce que gis ngeen weer wi démb man li ma ci jaaxal rek mooy sama doom yi am 4 ans ñoo ma ko doon won naan ma papa weer papa weer 4 ans de fu mu gisee weer ñooñu weer woo war na noo xoolaat seen bopp billaahi wallaahi taala dañ xoolaat sunu bopp dañ xoolaat sunu bopp waxuma la monde bi mais Afrique Afrique yëpp Sénégal moo woor tey Afrique Afrique tout Sénégal moo woor tey waxuma sax monde bi Afrique léegi ñun ñoo gën waa Afrique ñun dañ xoolaat sunu bopp waaye wóoyu ko ko man mi sampul ko ko man mi gural ful ba foofu koy maa wën dégg nga loolu da nga naan lan laa def sàmba waaye lan laa def waa dëkk bi yow la da nga naan lan laa def diw waaye waa dëkk bi yëpp man lan laa leen def seetaatal sa bopp nan seetaat suñu bopp nan seetaat suñu bopp nan xoolaat suñu bopp diine ay texte la du du ay nit ñooy toog fee def seeni mbir rafetal ko organiser ko capp-cappal ko ba mu rafet indi di ko proposer nit ñi nit ñi di topp ci bàyyi li yàlla wax ak yeneen déedéet diine ay texte la boo ci jàppee yaa ngi ci islam boo ko bàyyee yaa ngi ca mboy fon ca ndand foy foy ga man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wa fi riwaya man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu wa rad yonente bi nee na suñu mbir mii mooy diine ji ku ci dugal lu ci bokkul yàlla dala koy delloo jaana waaye yàlla moom woor waaye ku moom koor gi ku moom koor ku moom julli ku moom aj jeex na yàlla lum moom def ko loo loo ci xaar il faut nga tàggoo man ne damaa ñëw pour tàggu la pour julli ma doon tàggu la pour julli tisbaar ah damaa ñëw tàgg benn paa dafa am xaalis rek dem aji tàggul kenn waa këram sax la tàggu te bi muy dem la la ne dem naa damay aji lépp lu ngeen soxla mi ngi nii laaj leen diw dina leen ko jox jël avion dem mu ñëwaat paa yi mere ko bi ngay aji da nga ñu waroon tàggu mu ne ban aaya la ban aaya moo wax loolu ban aaya moo ne bu ñuy aj nañ tàggoo booy julli ji na nga tàggoo booy woor na nga tàggu lenn dong lan la sant jigéen bu dee da ngay woor du weeru koor tàggul sa jëkkër bu dee du weeru koor bu dee weeru koor la amul ndigal ndax yàlla joxe na ndigal bi ba pare bu dee weeru koor la nag nga tàgg doo tàggoo bu dee du weeru koor nga tàggoo lu tax ndax dañuy bañ mu am ci yow aajo fekk da nga woor waaye boo ko ne suba dama bëgg woor mu ne amul problème nga xëy woor soo wooree ba ngoon it mu wàcc fa la di dof doflu ne ko bu yeboo nga yem neel cocc ba dog jot waaw ah waaw wàcc quatre heures di dof doflu di xiinali bët di xonqal bët bu yeboo nga yem ne ko yemal mu ngoog kon nan nekk ay nit yàlla bu waxee wala fi nee nañ xaw ma bu golo buggee daxaar yàlla bu bëggee ñëpp dañu war a daanu ndax yàlla soxla waaw waaye yàlla nga dem nekk ci lu la neex ba màgget ba tourné ba kenn xamatul loo mel nga bëgg a ñëw ci yàlla loolu du sotti de waaw ñu ngi ci waxtu delluwaat nan leen dellu yàlla nee na subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa ma arsalna du loolu min rasulin gis nga min bi musuma yónni benn ndaw benn 124000 lañ yónnante yi 124000 ñoom ñëpp yàlla nee na li tax ma yónni leen mooy illaa lu dul li yu taa pour ñu topp leen allahu akbar waaw mais ku yàlla yónni mu ñëw ne yàllaa ma yónni nga ne ko waaw yàllaa la yónni mais mënoon nanoo tàggu yàlla mënoon nanoo tàggu quoi wala lu tax yàlla di la yónni lu tax yàlla yónni wul diw da ngeen bëgg a da ngeen bëgg a yërmande bi yàlla di joxe ngeen utal ay nit ñu ko yàlla di jox déedéet yàlla moom moom yëppam ku ko neex la koy jox ku ko neex mu jox ko ko yàlla moo tànn yonent yi yónni leen te ba tey mooy yàlla bi mu yónni yonent yi yonent yëpp ay góor lañ yàlla mës ta yónni yonent bu jigéen mbokk yi ñaata aaya ñoo ñëw di wax dañoo war a topp yonent yi ay ñaata la ay yàlla di wax subhanahu wa taala topp leen samay yonent ay yooyu mooy genn wàllu alquran genn wàllu alquran yëpp mooy topp leen yonent yi loolu moo tax gaa yi di wax ne laa ilaha illa allah muhammad rasulullah li muy tekki mooy yàlla la ñuy jaamu muhammad mooy wone nu nuy jaamoo yàlla yàlla wax na ci alquran ya ayuha allazina amanu atiu llah wa atiu rasul yàlla wax na ci alquran man yuti llaha wa rasul fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa yàlla wax na atiu llaha wa rasulahu wala tanaaza'u fa tafsalu wa tazhaba riihukum yàlla wax na innamal mu'minuun alladina amanu billahi wa rasulihi est-ce que aaya yi ci alquran topp leen yàlla ak yonent du jeex est-ce que xam ngeen ni yonent alayhi salaatu wasalaam ñun jullit ñi dañ ko yoral ay àq xam ngeen loolu ah mbokk yi ndax xam ngeen ne nun danoo yoreel yonent bi ay àq ndax xam ngeen loolu ah ndax xam ngeen ne nun danoo yoreel yonent bi ay bor danoo yenu ci sunuy loos ak sunuy mbagg juróom ñetti àq yoo xam ne yonent bee ko moom boo ci deewaalee benn joxoo ko yonent bi doo dugg aljanna juróom ñetti farata yu yonent bi moom ci sa kaw yoo xam ne lépp bu la neexee bu la naqaree da nga ko war a jox yonent bee ko moom juróom ñett la kon nan leen góorgóorlu doomu ndey yi yàlla nee na musuma yónni lu dul ab yonent wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah musuma yónni benn yonent lu dul dama kaa yónni pour nit ñi nañ ko topp pour nit ñi nañ ko topp looloo tax ma yónni ko lan moo tax léegi ñun ñu bañ a topp yonent bi lan moo tax soo nee nit ñi lii la yonent bi doon def ñu ne waaye nag ñun sunuy maam xamuñu loolu sunuy maam ndax yàlla bi muy yónni yonent bi gisul woon sunuy maam dama leen di laaj dama bëgg ngeen tontu ma ne yàlla bi muy yónni yonent bi gisoon na sunuy maam wala gisu ko gisuñu ko gisoon na sunuy maam xam ngeen sax yàlla yónni woon sunuy maam doyuñu ko doyuñu ko kan moo ko doy yonent bi moo ko doy mu daal di ne ko kii mooy sama yonent mu daal di koy tànn daal di koy yónni léegi nag kon li war mooy yonent boobu nga topp ko yàlla wax na ci alquran ku topp yonent bi mën nga topp wa man yuti rasul faqad ata allah képp ku topp yonent bi yàlla nga topp yàlla wax na qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni bu dee li ngeen di wax dëgg la man yàlla bëgg ngeen ma topp leen yonent bi fekkee bëgg ngeen yàlla li ngeen di wax dëgg la di ngeen a bëgg yàlla lu koy dëggal mooy ngeen topp yonent bi loolu la yonent bi yare woon saxaaba yi moo tax yonent bi di julli ci jàkk joo xam ne ñu ngi ko ju tuddee masjidu qiblatayn ah góor gi masjidu qiblatayn da ngay dem ci jàkk ji nii ni mel nii noonu la melaat nee yonent bi rukkoo di julli jibril ñëw ne ko tournel yàlla changé na qibla bi yonent bi tourné wala saxaaba ba jiite woon foofu daal di tourné gaa yi daal di pare daal ne waaw yonent bi ne li tax ngeen tourné gaa yi ne ko yaa tourné ñu tourné ñooñ tooguñu ko naan xee waaye yow luy sa dalil waaye looy def nii tourné fi ba mu neex la di tourné ñun dañuy taxaw xaar la ba nga pare nga wax ñu lu leer déedéet yonent bi dafa julli sol daal la mu jékki-jékki rek simmi dàll yi mu pare gis dàll yi ran comme ñun dàll yi ni ñuy ranyee vendredi ci biti mu ne lii nag gaa yi ne ko yaa simmi ñu simmi mu ne man jibril moom ma wax ne dàll yi dafa am sobe mu ne ma simmi ko bu ngeen di julli sol leen seen dàll noonu la sahaaba yi toppee woon yonent bi bëgg ko ci topp ko Abdullah ibn Omar dafa ñëw ci kaaba gi di aj sahaaba yi ne ko yonent bi de mës na wéeru ci kaaba gi mu ne abo fan la gaa yi ne ko xamuñu ko de ibn Omar daal di teg mantu bi daal di teggi kaala gi daal di jël ginnaaw gi naan nii ci miir bi nii di teg di dem ñu ne ko looy def nii ne damaa bëgg sama ginnaaw wéeru fi ginnaaw yonent bi tegu woon sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ ko bëggee woon noonu lañ ko toppee woon imam ali day naan def nii benn daf ñaar daf ñett gaay na ko lii nag mu ne nii laa gisee woon yonent bi di naan ma naane noonu keneen ki dafa ànd ak yonent bi yonent bi di faji aajo faji aajo ci àll bi yonent bu daan dem day yor bant bant boo xam ne ci suuf gi day sew pour pour jiit yeeg insectes yu ndaw yooyu nga xam ne dañuy songu nit wala ñu koy lor mu ànd ak kenn ku ko téyel ndox suñ demee ba wetu fi muy fajee aajo day jël ndox mi kooku taxaw mu continué ba kooku dootu ko séen mu jonkon faj aajoom bu paree ñëw benn bis yonent ànd ak waa ji ba tàqalikoog moom jël ndox mi continué mu jékki-jékki moom yonent bi fi mu jonkonoon mu siggi rek gis waa ji yéeg ci benn montagne di ko yërndu ay ku ko defoon fii tey waxuma nga def ko sax sa pap problème yi nga yem waaye nga def ko kilifa diine bi nga bàyyi ba cheikh bi dugg ci biir nga yërndu ni fi caabi ji dugg nga ne nii si ba gars yi fekk la ba taalibe yi fekk la fan nga jëm laa ilaha illallah allahu akbar moo tax yonente bi du sunu morom yonente bi waxul waa ji dara faj aajoom pare jël ndox mi sol ay dàllam yara bantam ñëw fekk waa ji wàccaat na ba taxaw fi mu taxaw yonente bi jox ko ndox mi mbuus mi ñu dox dox dox ba sori yonente bi ne ko waaw yow de dafa mel ni fi ma la bàyyi woon taxawoo fa mu ne waaw taxawuma foofu kay mu ne foo demoon mu ne dama la doon yërndu ya loo ci namm mu ne damaa bëgg xool noo doon toogee bu ma mbir mi dikkalee ma toogee noonu balaa may wuuteeg yow yàlla di ma dugal safara luy sa dalil ne fal yaxzari allazina yuxaalifuuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim ah moo tax ñooñu mel na la nu mel nii ñu ne benn paa bu oo sikkim bi wala mu ne bàyyi bàyyi ñun sunuy maam dañ doon oo oo di oo waaw ah wala nga gis paa bi daal di xuuf sikkim bi ba mu sot daal di bàyyi bi benn kii li yonente bi tere ne bu leen mel ak nasaraan yi mu bàyyi fi affaire bi quoi def nii nag mu baram fii nag ku nii li yonente bi tere allahu akbar bu leen def loolu bu leen nuróog ñoom bu leen nuróog ñoom yonente bi dafa bañoon nuróog yéeféer yi ci mbir yu bëri mu dindi ko nodd ci la bokk woor samedi ak dimanche ci la bokk vendredi ci la bokk korite ak tabaski ci la bokk tam xarit ci la bokk gis règle ci la bokk ci jigéen yépp yonent dafa wuute ba yahuud yi ñu ne waaw kii lu ko dal moom lu mu dégg nu nuy def rek mu def leneen waaw ndax wuute ak ñoom kon nañ xool tey suñu bopp mbedd bi yëpp ay yahuud ak ay nasaraan fi nañ waaw xoolal xoolal xale yu góor yi léeg-léeg nga ñëw jàkk nga gis waa ji julli kiris karas silib bi di génn kuy julli sa silib génn lan nga julli mais tubéy bu ñu ñaw ba ñu def ci foofu ceinture bi di dugg nu mu tudd ah fi ceinture bi di dugg ah dégguma waaw léegi tubéy boobu lu tax duñ ci def ceinture léegi saa gis paa bu kiris karas paa ma ne ñii alku nan jigéen ñi sax léegi waxutuma noonu dañ koo nangu ci góor yi waxee ñu ne dañuy check down est-ce que loolu mooy diine déggulee waat leen aaya bi de yàlla lan la wax wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa amul yonent bu ma yónni loolu dama bëgg ñu topp ko yonent bi wax na nun koy toppee mu ne bi iznillah waaye yonent boobu lan lañ koy toppee bi iznillah ci santaane yàlla ci ndigalal yàlla ilaamuhu bi shay mooy digle li yàlla wax ngeen def ko jeex na gis ngeen saxaaba yi ñoom mosuñu wuuteeg yonent bi yonent bi dem na sulhu Hudaybiya mu dem waa Màkk ne ko doo dugg doo fi dugg mu génn ne saxaaba yi ah gars yi gars yi nee nañ duñ dugg de gars yi ne ko dañuy dugg fal force mu ne déet dañuy tuur deret te ñun xeex indiwunu yonent bi taxaw wax wax wax wax saxaaba yi dëgër bopp yonent bi wax wax wax wax gars yi dégg ne duñ dégg yonent bi dugg na ñii dañoo nar a alkude ñi mbugal moo nar a wàcc seen kaw mu salama ne ko yonent yoo xam nga ne ñii yow rek lañ bëgg dañoo xër rek dañoo xër dañoo ñëw ak tàngaay ne tey foog nga dugg màkk ndax dañoo namm màkk waaye li ma lay wax rek mooy yow sangul watul armalal nga génn xool acca yonent bi dem sang watu armal génn gaa yi ne jàkk gis ko rek ku nekk dellu sa biir néeg watu sangu armal ñëpp génn mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaañi na ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaañi na ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaañi na ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu ak ñi wàññi moo tax añ màkk watoo ci gën au lieu de wàññi gis nga noonu lañ toppe woon yonent bi su defee ñu def bu teggee ñu teg tànk allahu akbar su gestoo gis leen su waxee ñu jëfe bu teree ñu bàyyi loolu mooy wa ma arsalna min rasulin illa li yuta bi iznillah waaye ñun dañoo topp yonent bi bu yonent bi ne bàyyi leen kenn du bàyyi kenn bu dee def leen kenn du def xala ana ana topp gi anam ndax yàlla waxul wa ma aataakum rasul wa ma nahaakum anhu ah tey suñu dund gii nuy dund nan xool ndax topp yonent bi feeñ na ci ku nekk xoolal sa bopp dama sa biir kër xoolal sa njaboot xoolal sa soxna xoolal say doom xoolal sa dëkkandoo xoolal fi ngay liggéey xoolal li la wër sa environnement ndax lenn ci topp yonent bi mu ngi ci li ngay def te gis ngeen yonent bi du ku ndaw ci ñun de noonu yàlla waxee nan ko topp lu tax xoola fa mu tàmbaleeg nu bu nit juddoo ñu koy tudd ñu koy tudd ñu koy ngénte lan la ñuy def ci nopp yi nodd ak lan ak lixaam nodd doog lixaam turu kan moo ci nekk nodd ak lixaam turu kan moo ci nekk noonu man dama dama xam temps yi dama am problème mu nopp nodd ak lixaam turu kan moo ci nekk sallallahu alayhi wa sallam gars yi xanaa turu Muhammad neexu leen Abdou Aziz Touré nee na turu Muhammad dafa neex dafa am vitamine C mu ne waxal Muhammad nga rek da ngay tàqamti ko dafa neex Muhammad allahu akbar moo tax tubaab bi dañ koo xam duñ ko wax ne maawu mi bugguñu wax Muhammad parce que dafa neex léeg-léeg ñu naan maawu mi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo noddee wala nga li qaam turu Muhammad nga yo sooy taaye ci julli turu kan nga yo pour nga génn ci taaya bi ci julli gi turu kan nga yo sallallahu soo duggee biir bàmmeel malaaka yi la fay fekk nan lañ tudd munkar ak nakiir turu kan lañ lay laaj Muhammad kon Muhammad jar naa xam xoolal fii ñu jaar ñëpp waxuñu pap waxuñu yaay waxuñu nijaay waxuñu sëriñ waxuñu kenn kan lañ wax yëpp Muhammad lañ wax bu la bare nga dund xamoo Muhammad temps yee passé benn cheikh moo dugg ci benn dëkk yor micro di tariloo maire yi alxuraan fatiha kenn mënu ko dëkkub lëmm mënuñu fatiha mu ñëw ci paa yi naan leen yonent lislaam nu mu tudd kenn turvewul yonent lislaam bi nan la tudd ñii naan yuusuf ñii naan yunus ñii naan musa ñii naan isa isa alayhi salaam naam naam isa alayhi salaam tuuti seex bi jooy billahi wallahi alazim sunu dëkk bii tamit boo duggoon kër di nga dem ci borom kër gi am na laaj boo koy laaj du la wax Muhammad la wala am na loo koy laaj ci diine du la tontu mukk te li gën a tuuti ci diine loolu ci la bokk lu ko waral mooy sàggane diine sàggane diine sàggane diine borom bi nee na walaw annahum cey bu doon ne ñoom izalamu anfusahum ba ñu tooñee seen bopp gis nga képp ku def bàkkaar tooñoo kenn sa bopp nga ko def walaw annahum cey bu doon ne ñoom ñooñu izalamu anfusahum ba ñu tooñee seen bopp nan la ñu tooñee seen bopp mooy dañoo dem ci keneen bàyyi yonent bi kon tooñ nañ seen bopp moo tax ku dem ci keneen bàyyi yonent bi rek tooñ nga sa bopp de waaw te ndeysaan te xam nga li garaaw da ngay gis ku bàyyi alquran ak sunna dem ci leneen la nga dem moo gën a métti li nga bàyyi léeg-léeg comme démb rek maa ngi koy wax démb ci guddi gi yëpp ay ndënd laa fan ay sa tabas ay ay tabala laa fanaane dégg ba bët set di fanaane tëgg ba bët set di wër di fecc di wër nii di yuux ak di liggéey bu gën a yomb ah ah di liggéey ba gën a yomb leen borom xam-xam nee na bu la yàlla ne jullil fajar nga bañ mu yàlla ne la jullil nga bañ ne yàlla da lay bàyyi ba mu leer mu boole la ak iblis iblis ñëw fekk la nga tëdd mun a sawaay nga ne ko wooye mun a jógal nga jóg mun a solal kilot bi nga sol mun a solal tiset bi nga sol wala mu ne la solal joogin bi nga sol mun a takkal kawas yi nga takk mun a takkal daale yi nga takk mun a acca ñu dem géej anawa ma jiitu nga toog mu daw daw daw daw daw daw daw daw ba géej ñaata kilomètre la sa kër ak géej ñaata kilomètre la sa kër ak jàkka ji ñaata kilomètre la ay ay lan ay centimètre ngay gis sa jàkka ji nga bañ Iblis ñëw daw loola 3 kilomètres nga yegg si mu ne acca nañ julli nañ julli bismillah loxo yi ci kaw nga ne nañ julli nañ julli ay nga yëkkati loxo yi ruko ruko nga génne nii su jot nga dem abdomino pare toog mu la la yaa ñàkk jom julli nga de ñaw gis ngeen gars yi fajar ñuy julli léeg la nga am benn paa mu ni mu ngi julli boo ñëwoon ne ko julli nga fajar mu ne non jullee ko ma ne damay bàyyi ba ma ñibbi quoi li nga bañoon léegi-léegi ci jàkka ji ak li nga def lu gën a metti ah wala seetlu leen loolu nga dañ leen góorgóorlu gars yi yàlla li mu bëgg ci ñun moo gën a yomb li nit ñi bëgg ci ñun yàlla li mu bëgg ci ñun moo gën a yomb moo gën a sedd xoolal leneen da ngay gis keneen koo xam ne li ko yàlla wax dafa yomb sedd mu bàyyi loolu nekk ci loo xam ne allahu akbar pare nag dafa ne am na ci tiyaaba waaw pare nañ waaw di xulli ay bët fekk jëlewu ji loolu yaram buy metti tooy dem safara waaw tooy dee dem safara ay at xaw na yàgg tuuti dama feebar ñu hôpitalisé ma Baudouin ndeysaan tëdd mooy saal yu ngand yooyu nga xam ne dañuy ranger la lii ñëpp ko bokk ñi nekk nii góor ñi nekk nii jigéen ñi nekk nii ñu ñëpp dañoo feebar xanaa ak nit ñi ñuy nekk ndool di ñu toppatoo ci ngoon gi am benn waay bu ñu indi ndeysaan moom tam dafa feebar sonn trop ñu tëdd ba 4 heures du matin waa ji commencé sukuraat saal bi yëpp di raisonné man dama doon nelaw jékki-jékki naa daal dégg saal bi di riir waa ji naan kar bu mu xëcc bu bàyyee rek nga dégg maire yi ne laa ilaha illallah saal bi di riir laa wax man loolu moo ma yee am na benn waaye bu nekkoon nii sama côté kooku moom keroog la pare ci saal bi dafa génn daw dem docteur bi ñee fajar fekk ñu ko fa waaw dafa feebar dafa daw yóbbaale kii bi affaire bi la ne tef teg dem kenn fekkaatu ko fa ndax ni mu tiite waa ji kar kar kar kar ba ci yàgg ndeysaan affaire yi métti maire yi ne may leen ko ndox may leen ko ndox may leen ko ndox ndeysaan am kenn ku indi ndox jox jabar ji ne ko jox ko ñu sol waa ji rek mu ne rek pare ndeke deena rek jabar ji salleeru bule lal yi maire yi tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha waa jooju moom boobu la jóg dem ndeysaan ñu génne jabar ji nit ñi daal di ñëw ñi liggéey ci hôpital bi ñëw laxas battu kii bi néew bi daal di koy génnee saal bi ñu bàyyi noonu lal bi mu vide ñu génne jabar ji mu yuuxu ci guddi googu ci biir hôpital bi mu yuuxu di dem di yuuxu di dem ba ñun ñi nekk ci hôpital bi ci biir saal bi déggatuñu baatam yàlla def ma tane mu ñibbisi dem école mu ñëw toog idaara direction am benn parent d'élève gu ñëw di wax parce que dafa doom yi dañoo yéex a ñëw mu ñëw di wax lan mooy sabab doom yi yéex a ñëw inscrire pour jàng ne dañoo amoon malade ndeysaan malade bi dafa sonnoon roi Baudouin la hôpitalisé woon ma ne ko Baudouin mu ne waaw ban saal mu wax kooku lan la mu mu ne góor la da moo ko jotoon mu ne moom daal da doon liggéey fii ngeen déglu baax li may wax da doon liggéey nekk ndeyam ak baayam ak jabaram di liggéey jékki-jékki daal di bàyyi liggéey ba bàyyi jabar ja bàyyi ndeyam ak baayam topp benn sëriñ uti ci àll ba di ko liggéeyal ne dafa jébbul mu toog foofu waa ji bàyyiloo ko julli def ko leneen mu ne ba mu demee ba feebar nag ba sonn jabet feebar jabet mu ne ñu dellusi ko mënatul dara las ñu yenu ko langar langar indi ko ñu yóbbu ko hôpital hôpitalisé waa ji ko yóbboon ñëwul de ay ay taalibe rek la ko boole ñu yóbbu seen kër seen kër yéen yóbbu hôpital hôpitalisé bi mu ñëwee au lieu docteur yi xool ndax lu ko jot xam ngeen ne ku jabar bu ñu la montalee butel da lay rey ñu daal di koy defal butel yi affaire yi monte mu daal di faatu bi ma ndaw si waxee loolu ne ma ba mu toppee sëriñam ba sëriñ bi bàyyiloo ko julli sama xel dem ci ma salakakum fi saqar waa ji sukuraatam ni mu méttee ma ne ko kooku maa ngi moom ñoo bokkoon saal mu ni ma ma ne ko waaw ma ne ko sukuraat bu métti la sukuraat sama xel ci aaya bala dem ma salakakum fi saqar nekk waa ji daawul julli lañ ko bàyyiloo woon julli dañ ko suulijee ndeysaan ba ñëw dégg naa sëñ bi ñëw ne day indi day day day dëj day indi nag papaam ne ko ca xaj yaag nag yi ñu kenn du ko fi dëje yaa lor yaa lor sama doom waaw kon ku fi topp nit bañ a topp yàlla bañ a topp yonent ba dee boo dajeeg yàlla li nga xam biir bàmmeel kenn du laaj sa pap sa papa bi la jur kenn du la laaj mooy kan sa yaay bi la jur kenn du la ko laaj muhammad lañ lay laaj muhammad yowmal qiyaam muhammad dong la lay laaj biir bàmmeel muhammad la lay laaj duñu la laaj Samba duñu la laaj Demba duñu la laaj Moodu duñu la laaj Kumba kan lañ lay laaj. muhammad kon muhammad jar naa xam gaa yi. wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi iznillah walaw annahum cey bu doon ne ñoom izalamu anfusahum ba ñu tooñee seen bopp. gis nga moo tax ku def bàkkaar tooñoo kenn sa bopp nga defar ku bañ a topp yàlla bañ a topp yonent bi. boo duggee bàmmeel li nga xam ne defoo ko sàmba defoo ko ma demba defoo ko kenn koo ko def sa bopp mooy li ñu waxoon ci commencement ba rek waaye ju jaaxaan ci kaw lawam di tuur ndox ñu ne ko eh yaa ngi nelaw de xanaa gisoo li ngay def mu naan non maa ngi ci douche bi di gént ma ngi ci douche bi toog bu yeewoo xam dina mere ko ko deful dara kon nanu topp yàlla topp yonent ñu yëg ne suñu defee bàkkaar suñu bopp lan tooñ mu ne jaawuka ñu dikk ci yow yenent bi fastaghfar fastaghfarullah ñu jégglu yàlla gis nga fastaghfarullah ñu jégglu kan allahu subhanahu wa taala fastaghfara lahum rasul yonent bi tamit daal leen di jéggulul ne allahumma ighfir lahum allahumma arhamhum allah waaw loolu mooy nga jéggalu ba pare nga ñëw ci yonent bi yonent bi jéggalul la yonent bi sàkkul la ci yàlla yàlla na la yàlla baal mu ne talabu minhu an yaghfira lahum bi lafz allahumma ighfir lana aw istaghfirullah istighfar mooy lan mooy talabul maghfira mooy nga sàkku njéggal loolu mooy istighfar baatu astaghfirullah li muy tekki mooy yàlla baal ma maa ngi sàkku ci yow nga baal ma loolu tax ñu soññ mbokk yi pour baat bi ñu xam nuñ koy waxee waaw nekkul rek comme ni ko gars yi di waxee non yàlla dina ma comprendre quoi xam ne li ma bëgg a wax yor sa kuy naan saafarulaay saafarulaay saafarulaay nga gis beneen part tëll fële naan subhaanallaay subhaanallaay beneen meer tëllëf ne naan laay laay lala laay laay lala lan mooy laay laay lala benn benn xale bu jigéen daa dégg benn waay ne benn waay ne laay laay lala daal ci yokk benn sant ndaw si ne alhamdulilahi rabil alamin waaj na ko looy def ni mu ne damaa bëggoon xam yàlla nu mu sant wax nga ma ko ndaw si daa jékki-jékki rek dégg na waa ji ne laa ilaaha illallaah daa ci yokk benn sant ndaw si ne alhamdulilah rabil alamin waaye na ko lu xew mu ne ko yàlla laa bëggoon xam nu mu sant wax nga ma ko waaw kii muy wax ni ah mu ne ko waaye looy wax ni mu ne ah man de yow laa dégg nga wax xam nga yow da ngay tooñ xam nga yow da ngay tooñ parce que ne ko lu ma tooñ lu ma wax man kay tooñu ma lii dama ko doon wër ay at nga ñëw tey wax ma ko yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu lii mooy dëgg waaye mu wërsëgal ñu ñu topp dëgg googu yal nañu yàlla woon caaxaan mu wërsëgal ñu xam ne lii caaxaan la mu wërsëgal ñu bàyyi caaxaan yooyu yomb de léeg-léeg nga gis ku gis dëgg daa ne wallahi xam naa li ngeen nekk mooy dëgg xam naa ko waaye mais mënuma ko mënuma ko ndeysaan daa ñu nekkee ci digg daaw bi nga xam ne amul fundul dem amul fundul dem amul fundul dugg partout ndeysaan na benn góor goo xam ne ndeysaan daf ñu woo ba mu ñëw mu ne sama kër a ngi nii ñëpp jël leen mais man mënatumaa dem ay kër gaa ngi nii jël leen ñëpp jigéen ak góor bu fi kenn des waaye man moom ñaanal leen ma rek man mënatuma bàyyi fi ma nekk loolu mooy xam nga xam na dëgg nangu na ay doomam ñëw ci dëgg mais moom gis nga ndeysaan seytaane téye na ko nee na mënumaa ñëw ñu ne ko lu tax ne damay bañ bàyyi ne man léegi maa ngi ci julli xale yi diini xale yi ñu ne julli xale mu ne waa xale yi ñooy julli naan ni di croiser a baraako waaw loolu julli xale la lan mooy julli mag kon lan mooy julli mag mooy julli wàcc sa loxo mooy julli mag julli julli xale kay mooy bii mooy allahu akbar wàcc sa loxo ba mooy julli xale ndax julli allahu akbar jël sa loxo teg sa dënd moo mag julli wàcc loxo kon kay wee mooy mag bii mooy xale bi mais maa la sax dañ koo këpp beneen waaye mu ne bu la ku la gis ngay julli nga ni allahu akbar daan ne nii lu mu lay wax ah boo gisoon sa doom di julli ne allahu akbar ni lii loxo yi ci kaw loo koy wax ku may tontu daanaa ko yow looy def nii waaye da nga jull woon ngay fa waaw mu daan ne allahu akbar ni nii loo koy wax ah kii li muy def nii waaw léegi ki ne allahu akbar ni nii nag yow loo koy wax ñu ne allahu akbar ni nii loo koy wax ku mu neex nga ni nii kon kon keneen ñëw ne allahu akbar ndaw sàppe bu bëri gi sàppe bi dañu ngi waa ñeenti nit ñooy ñëw sàppe bi fees keneen ñëw ne allahu akbar daal ne nii kenn amul dalil di ci ni ñoom ñett ñëpp kenn amul dalil kan moo am lu wér mooy kii ne allahu akbar daal di jël loxo gauche bi teg fii fii ci xol bi fii ci ala sadr yenn saa yi sax nga gis ku teg ci jumbax déedéet jumbax wérut de wala ci biir bi biir wérut de ala sadr fii ci dënn bi nga jël loxo ndeyjoor bi teg ci kaw su ñëwee ci tikku jara bi baax na bu ñëwee ci rusru bi baax na waaye ala sadr ci dënn bi loolu yeneen bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wastaghfara lahum rasul yonent bi jéggul leen yàlla ndeysaan buñ ko defee la wajadu danan fekk allahu yàlla tawaaban muy ku nangu tuub waaye rahiman muy ku yërëme ndeysaan jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu sunu borom lu tere woon gaañi bu nu defee bàkkaar lan moo tere woon ñaari mbokk ya ba ñu defee bàkkaar bàkkaar ba mooy lan dem attewoo ci leneen lu dul yonent bi ñu wuuteeg moom ñu dellu suwaat ci yonent bi pour jéggalu ko loolu noonu def ñu sàkku ci moom mu jéggalul leen yàlla kon day buñ ko defoon danga dinañ fekk muy lu nekk xéewal ak njëriñ ci ñoom seen kaw kon aaya yaa ngi noonu aaya ñaareel bi borom bi subhanahu wa taala wax na wax joo xam ne war nañ ci bàyyi xel dama waxoon démb loolaay waxaat tey alxuraan bi daa ñëw pour defar sunu dund daa ñëw pour ñu xam fan la ñuy teg sunu tànk aaya yi bokk ci aaya yi wax bu ngeen àtte woo leneen lu dul li yàlla wax safar ngir jëm yàlla da leen di mbugal aaya bi ci la bokk waaw démb ba léegi aaya yi ñuy jàng mu ngi wax ci mbirum àtte àtte woo li yàlla wax bokk na ci njuumte yi jullit yi juum tey def alquran téere barkeelu def alquran téere dee ku dee ku dee ku dee rek ñu ne nañ ko wàcceel kaamil léegi sax gars yi duñu def wàcce kaamil fidaaw la ñuy def fidaaw xam ngeen lan mooy fidaaw mooy nañ ko foqartu ci loxo yàlla loolu mooy fidaaw nañ ko jot loolu mooy jot jot jot xam ngeen jot amu leen jot mooy dañuy joxe dara pour ñu jox ñu ko lan la ñuy joxe mooy loolu ñuy jàng loolu kan moo ko wax ban aaya moo wax loolu ndax Aboubacar bi saxaaba yi génne saxaaba yi daan nekk ak yonent bu ñu génnee àdduna ndax yonent mos na leen defal fidaawu ndax yonent mos na leen wàcceel kaamil te gën a garaaw ci suñu njuumte lu nu def mooy jël alxuraan def ko téere barkeelu koo wax rek mu ne moo xaaral ma raay ci samay loxo ko ak kasa jëf waay jëf waay ko wax mu ne non am naa kaamil bu ñu traduire mu ngi sama kaw armoire am naa kaamil boo xam ne bon boo gisee bind yi non ak ak garaaw laa la wax loolu daa tax kaamil wàcc kaamil bi taxul bibliothèque bi wàcc de bibliothèque bi bibliothèque bi taxul kaamil bi wàcc oto bi yenn saa yi nga gis oto bu ñu teg kaamil ci kanam nii te ci kaamil kaamil bi du pour oto bi kaamil bi pour borom oto bi la yenn saa yi nga gis billahi wallahi wa taalahi maa ngi benn kaamil boo xam ne dama ko for ah sa kanam la for fekk gis nga ko kaamil su ma leen ko wonoon fii ñu bëri du ndogu tey ndax lu ñaaw liñ def kaamil bi suulaguma ko sax insha allah suba suba samedi la tafsir am naa ko denc ba lenti naa indi fi kaamil wan leen niñ def kaamil bi wallaay kaamil boobu ku ci teg bët jooy ndax lu ñaaw liñ def kaamil bi da ngay gis doomu aadama yoo xam ne bu ñuy dëkk ci koñ wala ñuy dëkk ci kër ñu ne la suul fa kaamil nga dem jënd kaamil suul ko kaamil bes tax nga def ci say xërëm suul ko yenn saa ngi gis bien ay gars yoo xam ne dañoo takk ngand kii ci seen biir yi seen dënn yi fii kaamil lañ ci def ci biir kaamil yenn saa gis ku takk ngandum jaaro jaaro bi dalay jaaxal kii fii nu mu téere alxuraan lañ ci def ndax li leen seen buxaaba yi di wax alxuraan du pour loolu alxuraan waxu yàlla la waxu yàlla waxu yàlla dañ ko war a gis nga maa ngi doon wax ay mbokk boo demee Arabie Saoudite comme nii ñu def nii nii nii kaaba yi ñu jël teg ko nii ñu kenn ñemewu ko biir kaaba gi kenn ñemewu ko jël kaamil di ko teg ci siyaada fii nii fi nga toog nii nga teg ci kaamil kenn ñemewu ko boo ko defee ñu vivre la ne la yée yëkkatal lii boo yéexee nga gis ku naaw ñëw jël teg ci kaw xulli la ay bët waaw boo déggee araam mu ne la boo déggul araam mu wax la wax loo xam ne da ngay xam ne kii lim la wax foofu kaamil kenn du ko teg ci siyaada xam nga Sénégal moom boo defee kaamil bi nii lu ñu wax ah macha allah ah parce que ñun foofu lañ toll nee nañ lii warul nekk ci suuf war nañ wax nañ dëgg kii waxu yàlla la waxu yàlla la ci kaw rek moo tax boo demee ko nga xam ne ñoo ñoo fonk alxuraan ci kaw lañ ko teg di ci sotti parfum ah foo tourné gis jàkka yi kaamil yaa ngi ci kaw ñu teg rangé ba mu rafet bal sax dañoo jël ay nit yoo xam ne dañuy rangé kaamil yi même boo ñëwee kaamil yi nga fekk ñu defee ko nii nga ñëw changé ko def ko sens contraire nga dugal ko yow pour dem da ngay gis waa ji bàyyi ba nga dugal ba pare mu ñëw xëcc kaamil bi dugalaat ko ni mu war a nekkee daa toogaat di xaar keneen ñëw parce que ñooñu ñoo ko dund waaw ñun dund nu ko ñun xamuñu kaamil mooy lan moo tax waaw moo tax fu nekk la fu nu neex lan koy dugal lu neex lan ciy def day gis yi bu xaaba boo xam dafa jël kaamil dugge ko biir duus sol ko ay dàll laa la wax takk ko ay dàll dugge ko biir duus nga gis ñii di saw ci ay kaamil ñii di ci dem àll ba la ilaha illa moo tax yonent bi ne njabarkat dañ ko war a rey haddu saahir a sayf njabarkat fu ñu ko fekk yonent bi dañ ko war a rey ndax njabarkat pas-pasam baaxul xam nga ne kuy saw ci kaamil wala nga ciy dem àll ba wallahi lëndi dinaa indi kaamil bi su ma fekkul ñu ñu ñu dindi ko fi ma ko defoon dinaa leen ko indil fii ngeen gis ko ci lu lay wan ne ñun waa Sénégal ni ñu ni ñu araamee moo tax nii rek la ñuy mel nii lañ mun a mel bu soobee yàlla courant beeg ndox mi ak bi du dara du changé nii rek wa man aarada an zikri fa inna lahu maïsatan danka lan mooy maïsatan danka maïsatan danka mooy lan mooy dund gu karaj xam ngeen karaj karaj bëñ moo koy def waaye day fekk bëñ doon sàqami dara la mu doon sàqami mu fekk ci suuf gis nga tey ni nga wooree nii nga nga xiif nga ñëw fekk ñu teral la ñu teral la ñu tegal la cere cere yu xonq ci yooyu am yàpp yu xonq yooyu affaire bi niin bu leen dog nag daf leen nànk bu seen xel dem ma leen di nettali rek mooy cere tam xarit yooyu waaw cere tam xarit yooyu ah ñu tegal la ko fekk da ngaa woor nag ba ngoon ñu tegal la ko nga nga espérer nga tibb première dànk bi rek nga sax rek ndeke genn wàll gi cere la genn wàll gi suuf la sa gémmiñ ngi na lay def dànk boobu da nga koy sàqami wala da nga koy yàbbi lu tax mënatoo koo sàqami loolu mooy dund gu karaj mooy maïsatan danka loolu la yàlla wax ci alxuraan loolu mooy maïsatan dànk mooy sunu dund bi dund goo xam ne ñëpp tiit sécurité amul ah am na amul am na kenn amul jàmm nit ñi dañoo xiif wala Sénégal ni ñu xiifee bu njëkk ba da ngay gis nit ñi lekk ba desal carton carton lan la ko xale yi daan doyee def ko oto di ko fooyee tey carton yi dañ leen di jaay pour xar yi lekk ko paa boo gis eh may ma carton bi eh boo yàq bu njëkk ba kër goo dugg fekk ñuy lekk fonde da nga leen di yërëm ndeysaan la ilaha illallah mais yow diw ñoom diw ñoo sonn allahu akbar allahu akbar gis nga allahu akbar Sénégal Dakar laa wax Dakar bi muy Dakar ku la fekk ngay jënd nga waxuma nga jënd ko de nga nekk sa kër boobu bu njëkk ba boo jaayee fonde kenn du ko jënd fonde comme léegi ni ñuy ràngee borom fonde abonné maire léegi nga gis ko abonné nga gis maire bi ñu ne maire bi daa jaay fonde ba dem màkk gisu leen ko loolu amul woon te tey yàggul de li may wax ni yàggul dañ koy rang waaw nga dégg ñun abonné day gis ko abonné maire man dama ñëw fii pour waxtaan ak yow abonné fonde quoi weer bu dee dinaa ñëw fay la sama siwo bi sama sama doom dina ko indi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndeysaan wala jaay ay fonde ay ataaya jaay ataaya la ilaha illallah Sénégal soppeeku na waaye lu ko waral mooy maïsatan danka foog ñu foog ñu foog ñu xalaat am na yoo xam ne kenn xamu ko woon fii ci réew mi jaay fonde ay jaay cere yii am na ay jamono laa wax ci Sénégal ku ko fi jaay di nga ko defar suba ba ngoon kenn du la ne asalaamaaleykum ndax dañoo jàpp loolu ku ko doon lekk wala kaana nga waaw léegi tey tey léegi kuy reere fonde mooy patron waaw mooy patron léegi sax paa yi moom añ rek la ñuy joxe añ ndekki beeg reer bi da ko yaa xam nekk yaa xam waaw léegi reer añ rek añ moom gaa yi d'accord nañ mu nga xoola léegi jaaykatu lekk yi kenn du fande ñëppay jeexal foo tourné guddi gi ñi jaay beñe ñi jaay café ay café Touba yi ñuy jaay bu njëkk bi kenn daaw ko jaay ñu xoolee léegi tey dégg waa ji ne booy ci laa aji màkk loolu yoon ne nit ñi dañoo torox te dara waralu ko lu bàyyi biñ bàyyi diine bàyyi biñ bàyyi téere yàlla bi loolu kese loolu moo nu toroxal nii moo nu indil musiba moo indi sunu dund yàlla dindi barke bi barke bi la yàlla dindi barke bi dund gi moo amatul barke nañ la jox xaalis 10 000 francs moo gën a tuuti ci biir yi am maanaa suñ la ko joxee léegi nga wecceeku ko billaahi jeex na yéen nag li may wax déggagu leen ko bàyyi leen ba ngeen nekk ay borom kër instant yi am na booy yu bari fii boo leen nee 10 000 amul barke dañ naan waaye yow oustaz moo mën a sóob 10 000 amul barke waaye yow man bu ñu ma mayoon 10 000 léegi ma korite waaw parce que yow sa problème yëpp 10 000 la boo génnee fi léegi jaar ci mayka bi fël téeméer jënd warga ak suukar 250 xaw ma 300 nga dem ne affaire bi neex na jënd ñaari paquetu biscuit est-ce que xam ngeen saako ceeb jarul 10 000 ah voilà saako ceeb rek jarul 10 000 mu nekk boo yoroon 10 000 mënu am saako ceeb kon kay léegi nag ku yor kër nag war a fay courant fay ndox fay téléphone fay location fay njàngu doomam est-ce que 10 000 mën na loolu allahu akbar ordonnance yi di takarnaase di daw di daxante nga ñëw ñu tegal la ñeenti facture ñetti S yi Senelec Sonatel S2 ñu tegal la ñetti S tëf moo tax kër gi koñ boo dem ñi fa ëpp ñu dee mooy paa yi
waaw dégg naa ndox nañ koy yokk. waaw ah ku weddi li ma wax seetal seen koñ ku weddi li ma wax la ma ne seetal seen koñ paa yeeg maire yi ñoo ñëpp ñu dee aca ku nekk fi nga toog na sa xel daw dem seen koñ wala seen dëkk ana paaya yenn wàllu yëpp dem nañ nëbbatu ci ñoo sonn ñoo sonn su nekk dañ leen di tàllal loxo xanaa xam am na yoo xam day wàññi day wàññi day day indi xalaq day indi xat-xat ci nit surtout jigéen ñu bon yi nga xam ne léegi noonu lañ koy defee nga wàcc rek simmee koo goo sax ñu indi la ñi ñetti facture ak benn ordonnance te yow bi ngay ñëw yaa ngi naan fan laa amee dépasse suba ñu indil encore loolu nan ngay def buñ la tegaloon reer bi sax doo reer da ngay teg ñaari kudd ne suur naa waay ñi dafa saf xorom fekk amul xorom sax fekk yow mi la sa gémmiñ gi saf yal nañ yàlla jubal yal nañ yàlla changel sunu dund yal nañ yàlla def ay dëgg-dëgg jullit borom bi subhanahu wa taala nee na fala déedéet bañ naa nanguwuma mooy fala boobu waxal déedéet waxal nanguwuma waxal d'accorduma waxal duma ci ànd wa rabbika giñ naa ci sa borom yow muhammad ñii ngay waxal laa yuminuuna du ñu gëm bu ñu jullee du ma ko jël bu ñu wooree du ma ko jël bu ñu saraxee lu ñu mën a def ci diini du ma ko nangu lu tax ndax laa yuminuuna gëmuñu ku yàlla wax lii luy sa mbir déedéet la yàlla njëkk a wax déedéet bu yàlla wane ne woon déedéet falaa laa yuminuun rek doy na mais mu giñ mu ne ko wa rabbika giñ naa ci sa borom yow muhammad alayhi salaatu wasalaam ñii may wax gëmuñu yàlla laa yuminuuna gëmuñu lu tax gëmuñu xatta yu xakkimuuka ba ñu atteloo la fii ma shajara baynahum ci li lënt seen diggante li lënt jafe-jafe yi ñu am problème yi ñu am ñu indi ko ci sa wet teg ko ci kaw taabal ji ñu ne la ñun de affaire yaa ngi ni loo wax ñu def loo soo teree ñu bàyyi boo waxee ñu def su boobaa la ñuy gëm fekk defuñu loolu gëmuñu lii waxu kan la yàlla nee na ñun waa Sénégal gëmuñu feek joxuñu sunuy problème Muhammad est-ce que kon gëm nañ su yonent bi ne su yàlla ne ñun gëmuñu benn waaye ne nu xoolal gaayen suba maa leen di dugal aljanna amul problème ñoo leen rek ah ah c'est nee na moom day wax ak néew yi nekk aljanna mu ne ku ko gëmul boo dee da ngay def safara ku ko gëm boo dee da nga dugg aljanna kon moom yonent la xanaa yàllaa ko yónni yonent bu bees la ban dëkk la ban dëkk la day ñëw seen dëkk moom dëkk bi mu jógee xamoo nu mu tudd waa jaabur alhamdulilah ba mu nekkee séeréer jaabur dégg ngeen loolu de nit am na fii am na fii Pikine am na fii Pikine Ecotaaf booru école Babou Salam waa ji buy julli xam ngeen fan lay jublu fii waaw yaa ngi moom yéen a bokk koñ waaw jërëjëf neen dañ koy yónni.
ndeysaan waaw
fan yee paase yoroon na ay kat kat yu bëri xaw ma fu mu ko jëlee.
buy julli fii lay jublu ñu lay jëlee nii.
te am nay taalibe ah ñoo bokk am na ay taalib.
waxuma leen fu sori de fii laa wax Texaco fii Texaco ku dem nag Texaco laajteel ana yonent bu bees bi nga ay na la këram a ngi fi
dama waxoon ne soro soro bi daal daanu ci kaw. tabax ci kaw.
yonent bu bees ndeysaan Sénégal dafa neex waa Babou Salam dégg loolu de ah waa école Babou Salam xam nga école franco arabe bu mag la ñu dégg loolu ñu dem ci moom ñu ne ko yow lu tax ngay julli di jublu fii mu ne xam nga yéen sama xarit ngeen te dama leen a bëgg te école bi foofu la nekk ci yéen laa jublu ndax seen papa moo ma jàngal sama xarit la ma la may jublu ci yéen wala loolu loolu lay la loolu wax la Sénégal mooy ku neex rek lu la neex nga wax lu la neex nga wax lu la neex am na étage léegi.
lu la neex te ba pare li garaaw li garaaw mooy Sénégal kenn du gis kuy kuy dem safara ñu xam ne kii dee dem safara ñu bañ ko topp booy dañ lay topp nit ñi ñooy ñëw ne foo jëm nga ni safara ñu ne dañuy dem
day jàngale de.
dañuy dugg day jàngale.
loolu moo métti loolu moo métti ci réew mi ku woote rek benn borom xam-xam daf ñu doon wax ne Sénégal nit ñi seen bopp yi suuf su nangu la loo ci ji mu sax loo ci ji mu sax loo wax nit ñi rek mooy nangu nañ ko mooy lan loo ci ji rek day sax day sax boo ñëwoon ci sénégalais ah gisoo Abdoulaye Wade lu mu leen waxoon bu ngeen ma falee dinaa leen defal ay robinet yoo xam ne da ngay ubbi rek maa fi génn université la ko waxee woon.
gars yi ne waay moom la waa xabaar jalgati di toppandoo naan micro yoo xam ne da ngay ŋaang rek wax ji di dem gars yi di yuuxu ci tali yi di di xëm waaw allahu akbar ay robinet maa fi nga xam ne da ngay defar fee ñankatang bi rek nga ñëw nga ubbi robinet bi mu nekk maafe nga ubbi bi mu nekk supp kànji nga ubbi bi mu nekk yaasa Eh. gaa yi ne bu dëgg la ah inna lillahi gaa yi gëm ko léegi ana robinet yooyu ah tëj nañ Sénégal yi loo leen wax ñu nangu loo leen wax ci wàllu diini te li garaaw mooy au lieu ñu xam ne du dëgg mais da ngay dégg ay dof yu toog fee naan dëgg la gis nga yéen da ngeen a mën a weddi am na affaire bi am nay baatin affaire am na lu yàlla maye yàlla mooy maye te yàlla bu ko neexee mun na may kooku loolu yàlla lay maye yàlla lu maye maye asamaan du taw xaalis loolu soo doful sax xam nga ko su benn ñëw benn nit ñëwoon ne la asamaan mun na taw xaalis benn bis ne ko du dëgg bi ngeen juddoo ba léegi ndax mos ngeen gis asamaan taw xaalis asamaan ndox rek lay taw xanaa mbugalum yàlla ñëw mu taw mu taw ay xal wala mu wàcc ay xeer te loolu mbugal la su boobaa nekkatul taw asamaan lan mooy sunanullah mooy li muy taw mooy ndox géej gi liñ ci xam mooy jën moo fay nekk suñ na benn waay ne wallaay gis nga bu ngeen jëlee xeer yi tëmbal ko ci géej gi dem woowi diw jën yi dana xeer yi day nekk jën ne ko sëñ bi yaa mun a fen sama benn goro ndeysaan mu ne docteur Ahmed Lo bu ndaw démb dafa ndogu si woon sama kër nee na dafa nekk ci oto di dem waa ji teg ci kaset kaset bu doy waar ci oto bi mu jékki-jékki mu ne chauffeur bi waaw lii nag waa ji na ko mais li muy wax mooy dëgg yow yàlla nga oto bi yàlla la man yàlla laa lii ñuy gis ñii ñëpp ñii ay yàlla lañu nee na fi mu sëgg mu mu mu ne nii ci rek comme àll bi la mu ne nii rek gis benn xaj mu ne ko chauffeur mu ne ah ma ne sa papa ngi ne mu ne anam mu ne xaj ba mu ne yàq rek waa ji freiné oto bi. ni mi mi mu ne ah yow la yaa ne yow yàlla nga man yàlla la oto yàlla la lu tax ma ne kee mooy sa papa nga mer mu ne parce que waroo ma ko wax mu ne parce que waroo wax yàlla yow yaa yàlla waroo ma wax man yàlla la xaj bi waroo ko wax yàlla gis nga bi nga ne xaj bi yàlla la ñu ne la sa papa la noo def nee na waa ji noppi taal oto bi ñu dem waaw voilà gis nga loolu mooy fa buhita allazi kafar xoolal ki gis xaj naan xaj bi yàlla la nga gis xaj nga ni xaj bi yàlla la ñu ne la xaj bi sa papa la nga mer kon kay xam nga da ngay fen xaj bi du yàlla hmm? mais comme da comme dañoo tëj suñu xel yi abale ko ponkal mi jógee dëkk ak dëkk ñëw toog sa kanam nga ne ko lu la fi indi mu ne pour nga nax ma nax ma rek dama bëgg nga nax ma ah waaye ñu ne la bismillah ci lal buum bi takk sa bopp nga takk buum bi xaar ko mu ñëw daa takk sa bopp ne nañ ma nax ñu nax la ana sa xel ana sa xel waaw ana sa xel sa xel fan la dem taalibe bi bi mu àndeek papaam ñu bay ci naaj bu tàng ba nawet jeex papa ji nag nañ jël genn wàll tool bi joxe suñu sëriñ doom ji di caaxaan papa ji gaare saret bi jël genn wàll gu dugub yëpp teg ci saret bi anamam ñu ñëw sëriñ bi recevoir leen na ngeen def est-ce que ngóor yow gëj naa laa gis na maa ngi ci woon ci tool yi rek ana affaire yi mu ne pare na mu ngi ni indi naa ko ñu ne taalibe yi dugal leen ñu maa nga leen ñu dugal ma taal leen ma ñaanal leen taal mu ñaanal leen dem leen ba déwénati ngeen ñëwaat yàlla dina leen fay dugal na leen aljanna ñu dem dox naaj bu tàng taxaw ci tali bi di wut oto lu ñu ñibbi amuñu oto sëriñ bi jékki-jékki daal leen di romb 4x4 bi nekk ci ginnaaw daal nee leen nii te bu dem doom ji xool papa ji Moussa mu ne papa kii mooy suñu sëriñ bi ñu seeti woon léegi léegi mu ne waaw moom la moom la moom la kay yow xamee nga ko. mu ne papa moom oto bi feesut de mu ne waaw waaw waaw feesut kay mu ne waaw lu tax moom yóbbaale wunu te naaj bi dafa tàng amoon oto. papa ji ne ah xam naa dafa yàkkamti xam naa kii mu ne papa ku la yóbbaale wul àdduna ndax àllaaxira mun na la yóbbaale. ku la yóbbaale wul àdduna ci otoom ndax àllaaxira bu la waxee naa la yóbbaale na la yóbbaale doom ji ne ah papa ji ne ah wóorut de mu ne ko pap mu ne ah mu ne nan jaamu ji yàlla loolu boo wóor de nan jaamu ji yàlla waaw looloo wóor mbokk yi kaay leen ñu jaamu ji yàlla ñu bàyyi caaxaan yàlla nee na fala wa rabbika déedéet giñ naa ci sa borom laa yuminuuna ñii gëmuñ xataa yu xakkimu ko ba ñu atte loola fii ma shajara baynahum ci li lënt seen diggante ixtalafu fiihi li ñu wuute waaw lan mooy dëgg lan mooy caaxaan dañ ko indi ci yow ba nga leeralal leen lan moo ciy dëgg fii ma shajara baynahum su ma topp laa yajidu duñu fekk fii anfusihim ci seen bopp xarajan ñagg-ñagg naqar metit mimma qadayta ca la nga atte su ngeen xasee ñëw ci yonent bi yonent bi bu leen attee amatu leen droit di mer wala ngeen di kontaan da ngeen di nangu lu mu wax rek ngeen ne lool la ay sallimu ngeen jébbulu tasliman ak jébbulu gis nga loolu mooy diine ndeysaan yonent bi dafa seen benn waaye bu takk lam ci biir marché bi yonent bi ñëw ba ci moom ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne wa aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatu ya rasulallah bi mu ne day nuyu loxo bi rek yonent bi jàpp ci lam bi daa di xëcc ba loxo bi dereetal yonent bi sànni lam bi ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflaxta abadan soo faatu woon lam bi nekk sa loxo doo texe mukk yonent bi dem waa marché bi ne waa ji yonent bi dem na jëlal salam mu ne leen yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat yonent bi du tekki safara sama loxo ma koy takkaat loolu mooy ngëm yonent bi su xasee wax mbir mi soo ko bëggoon ak lu ci mën a nekk nu mu neexee ak loo jàpp bàyyil parce que yonent moo la ko tere te boo bàyyee di nga gis njëriñ yonent bu teree rek bàyyil tere bàyyil taxawal su yonent bi ne taxawal taxawal bu la nee demal demal wallahi alazim yonent bi joxe na ndigal ne tey bu kenn fanaan ci fii fii bu fi kenn fanaan yéen ñëpp na ngeen dem place sangam ngeen xaar ma foofu saxaaba yi genn wàll gi dem am ci kenn koo xam ne dane tey la alxamis ci guddi xam naa ne ñii fi ñu jëm dañuy xeexi te bu ñu xeexee dañ leen di rey man dama bëgg naa bàyyi ba suba aljuma sama dernière ajjuma ci kaw suuf ma julli ko ci ginnaaw yonent bi après ma daw dem dabi gaay waa ji li mu wax rafet na wala rafetul ki julli ajjuma mujjantalu ajjumaam ci kaw suuf yonent bi jiite ko ko kooku xéewal wala du xéewal ah mbokk yi dégguma dara ki yonent bi jiite dernière ajjuma ci kaw suuf xéewal wala du xéewal ndax xéewal gën na koo rëy waa ji daal di nëbbatu ci guddi gi demul ba fajar jot mu nëbbatu ñëw julli fajar delluwaat këram ba ajjuma jot mu ñëw dugg ci biir mbooloo mi julli fi ñu sëlmale rek mu jóg bërët di bëgg a daw rek yonent bi ne ah kii du diw mu gestu ne man la kay mu ne ko ah lu tax àndoo gaa yi ma yónni woon démb bokkoo ci woon mu ne ah kay lu tax demoo mu ne yonent dama bëggoon ma julli ndaw yow ajjuma sama dernière ajjuma nekk yaa ma ko jiite su ma demee bu muñ ma reyee rek ma dugg àjjana direct yonent bi sëgg ba ci àgg sëggi xool ko ne ko xaw ma lan la de waaye gaa yi niñ la rawee ci àdduna noonu lañ la rawee àllaaxira même boo duggee aljana ñoom ñoo lay raw dox bi ñu dox démb ci guddi ba tey ba heure bii même boo duggee àjjana doo leen dab wala loolu moo tax yonent bi bu waxee defal su teree bàyyil mbokk jullit yi lii mooy sunu darsi tey ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu